def leen di ñu màggal maam Cheikh Ibra Fall jàmbaar ja Cheikh Ibra Fall ilaayu daama wala jëmal xiyaamati bi la malaam Cheikh Ibra Fall kat fàkk rijaama Cheikh Ibra Fall kat gisal ma jaal mampu عندك الكمال وصلت حقا للجلال إبراهيم مفعول وقال لم يصل تجري غاب بالنظر وتك بشيخ رفال شيخ رفال بشيخ رفال بشيخ رفال بشيخ رفال شيخ رفال في طريقة الكمال فإن يتب بسر جلال يعصب وسبق أنك شيخ رفال لا يدام أنك من قامت بلا ملام شيخ رفال لا يدام ولك يوم الخيام هتي بلا ملام جارامة جرجم سرين توبا جرجم سرين توبا جرجم wax leen jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima lay taamu ëllëg yawmal xiyaamatu bila malaamu jaaraama Cheikh Ibrahima Fall lamp bi Cheikh Bamba taal dara ngir yu may kamal xam na nga doone birif jaaraama Cheikh Ibrahima Fall lamp bi Cheikh Bamba taal bir di nekk naa yal na nga doonee béréb. monsieur Kadaara ñëpp a loo. xëy na mi ko moom. monsieur Kadaara ñëpp a loo. xëy mi ko moom. ne Bamba moo la ko jox ko say pexe. wut a dugg di li si bëccëg mu xëy ba tës baar sëriñ Maxtaar Touré fa jaat leeram nga wan ko lay fexaay Maxtaar Touré nga yori joor yenu ko jëm Mbàkke Kajoor sëriñ ba yónni ko ca bu sëgg da topp jay fexaay wutu bu far ba jiitu leen sëriñ Bamba ni ëpp la leen leeram guddi yi woon na leen fu mu toll dënnam bay bax baxi booloo mi def la ni ñu màggal maam Seex Ibrahima Ibra Faal far ba leen Sëriñ Bamba ni ëpp na leen leeram guri gi wër na leen dañu ànd sampu bi Seex Bamba taawoo dara ngërëm yaay kamal yàlla nga dola béréx diggante njukkeeg jàmmatel danga dajee ka fali bu yaa tax ba diina defa leer taxol nga pon mañ daa tox daxate njukkee njàmbatel danga dajee yaa tax ba diina defa leer nga pon mañ daa tox mbooloo mi def na ni ñu màggal Serigne Saliou Mbacké borom jàmm ak jamono Serigne Saliou Mbacké moo fi nekk moo di docteur moo di fekkal li doon yokk awtaar Cheikh Saliou Mbacké moo sell te gëm seen mama te gëm Rasulillah Mbacké ko dem fa moom mu war a yàlla ak yeneen maam

ويقتل الإنسان لكن أنك أو نكر بالجبل تجيزتي ويسوي نكر ويقتل الإنسان لكن أنك أو نكر أي فريق يدفع عندنا yàlla mu génn Serigne Saliou Mbacké ci àdduna yàlla mu génn Serigne Saliou Mbacké fii ci àdduna yàlla ko jox ay kër yi ca àdduna